shahru ramadan moo bari ngëneel ci weeru koor gi shahru ramadan moo bari ngëneel a'udhu billahi as-sami'il 'alim min sharri shaytani al-la'in ar-rajim dhil 'udwan na'udhu billahi min khawfi al-anami wa min ridan an nafsi hammir rizqiya allahu ala almuxaatabi wasjud waqtarib karaman salli wa sallim salaaman rabbi allahu ixwaani fillah nuxayikum bi taxiyati ahlil janna fil janna alaa wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñuy topp ci seen télévision Thiam Sono TV ci seen émission wéttalu koor ñu ngi yëkkati ay kàddu nuyoo ak ziyaar di ko jëmale ci képp kenn ci yéen di leen ndokkeel ci weeru mag wile nga xam ni weer waa ngay dem fa tabaarakallaahu weeru barke wi weeru ngëneel wi weeru yiw wi waaye weeru leer wi weeru sippeeku ci bàkkaar waaye weeru sëf tuyaaba chahru ramadan al mubarak chahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhude walfurqaan ñu tolloon ak yéen tabaarakallaahu ci ngëneel yi nga xam ni moom la koor làmboo ñu tegoon sunu loxo démb ci bind bu am solo mooy di fàttalante ak yéen di fàttali sunu bopp ni weer wii promotion la ci xeetu yonent bi ci ñu jaare ci ñu tëjal nu buntu dem safara waaye tey mbokk yi ngëneel li la koor andil mooy ngëneelu yi nga xam ni daf lay empêcher nga jaamu yàlla yi nga xam ni moo lay mooy dox sa digganteeg jaamu sa borom muy bànneex bakkan ak seytaane tey borom téere bi def la andil ne la bokk na ci ngëneel yi la koor andil koor gi moom mooy not sa bakkan ba doo def lu neexul yàlla waaye ngëneel bi mu la andil tey mooy seytaane ci boppam la koy tënkal seytaane ci boppam dañu la koy tënkal waaw mooy taqyidu seytaan ay shayatin fi shahri ramadan waaw mbokk yi yàlla waxoon nañu ci alquran ni inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa cheytaane mii kat seenub noonu la de waaw seenub noonu la jàppee leen ko noonu ndax moom li tax mu doon seen noonu moom daf leen teel a déclaré guerre waaw moo waxoon yàlla fa bi izzatika la uxuwiyannahum ajmain wallaay ndeysaan eh, mbokk yi seytaane moo taxaw xas-xasuloog yàlla waaw wax yàlla ne ko daal faawu sukkandiku rek ci kàttan yu ma defal li bari ci say jaam danaa leen danaa leen yóbbu sawara wala sax suma ma mënee ñoom ñëpp rek danaa fexe ñu ñu topp ma sawara ay sunu borom lam ko tontu moo daal xel inna ibadi laysa laka alayhim sultaan borom sunu borom daal di defendre doomu aadama ne ko ah man kat euh, sama jaam yi fee téerlu nag bañ ma topp ñooñu xëy na nga mën ci ñoom dara waaye sama jaam yi nga xamante ni dañu nangu doon sama jaam di ma jaamu ñooñu doo mën ci ñoom lu bari waaw xanaa léeg saa nga xawle ne kii waaye dañuy dellu si waat man la nu gëm. man lañu bëgg maa leen dooleel boo mënee sukkandiku ci sama kàttan man di lor sama jaam jëme sawara ma ni tamit sama kàttan mën naa baaxal sama jaam ba doo ko yóbbu sawara mu nekk diggante bu doy waar bokk yi waaye nag ci weeru koor gi ñu tëngal la seytaane xam nga am na émission boo xam ni dama ko jagloo loon spécial naka ngay def ba xàmmee bàkkaar bi la bakkan di defloo ak naka ngay def ba xàmmee bàkkaar bi la seytaane di def loo waaye nag fii def la andil ngëneelu bu weeru koor jotee dañ lay tënkal seytaane waaye yaa sa bakkan kon ni nga yaree sa bakkan bëccëgu weeru koor boo ko continuer guddi gi mën ko li ngay fege sa bakkan bë euh, euh, weeru koor yëpp bu weeru koor bi jeexee war nga mën a fege sa bakkan noonu ngir yàlla ndax lan ki la doon sonal muy seytaane tënkal nañ la ko mbokk yi ñaari saadu musluwaay yi nga xam ni ku seytaane jàpp moom ngay musloo kuy tëdd di nelaw bañ jinne seytaane yi sonal la moom ngay jàng boo bëggee yàlla muccal la ci ay liggéey muccal la ci ay cat muccal la ci lépp lu bon ayu mbindeef yépp muy almuawwadatayn mooy ñaari saaru musluwaay yu mag yi nga xam ni saar ëpp leen bayre ci alquran mooy qul audu bi rabbil falaqi ak qul audu bi rabbin naasi sunu boroom naas yi ma yow muhammad waxal audu bi rabbin naasi maa ngi musloo ci buuru maanaam borom nit ñi waaw ca tafsiru Maolana Abil Abbas Ahmad Tijaani bu bi nga xam ni daanaka dégginu alquraanam boobu tax na mu mu uh, mbiram yaatu biir faas waaw ay mufassirul quraan yu bari mu gàgganti leen mag ñu yàgg di firi alquraan mu firi ko firi mu yéeme bi rabbi naasi waa borom nit maliki naasi buuru nit ñi ilaahi naas yàlla yi nit ñi te buur di boroom di yàlla mu boo ko bëggee dégg ci tënk nga naan maa ngi musuloo maa ngi làqatoo buur bi nga xam ni mooy yàlla yi liir yi juddoogul waaw bi rabbin naasi parce que fa sunu borom di fekk doomu aadama di ko fa tabax foofu rab bi rek moo ko mën parce que rab bu bokk na ci ay firéem kii jële mbir ci étape yóbbu ko ci étape rab bi dina firi kii yare rab bi dina firi buur bi nga xamante ni mooy évoluer jaamam ci ay étape muy màgg di avancé bari nay firi soxna na Tidiane ko firee noonu nee na étape yi nga xam ne moom la doomu aadama di dund dafa topp ñett yooyu muy rabb ak malik ak ilaah yàlla mi nga xam ni mooy buur bi nga xam ni mooy suivre cursus bi doomu aadama di jaar ba juddu allahu akbar fa xalaq na al alaqata mudga fa xalaq na al mudgata izama fa kasaw na al izama laxma summa ansha'naahu xalqan axar fa tabaraka allahu rabbul alamin <laughs> yàlla yàlla rëkk dënn bi bàqu bu doon ci mbëru làmb yi mooy fa ñuy toll rek nga dégg ñu naan curr sa gunu gu ndax waaw foofa lay xaw a toll foofu sunu borom ne fa tabarakallahu rabbul alamin waaye fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin ala ne maa mën bind lumbu deret toq ma nuyu lumbu deret lumbu deret suux suux mu dugal ci ay yax juróom-ñeenti weer nga gane àddina ne uwe yàlla ne foofu may rab bi man mana moo tax bu liir bi juddoo huwa lay wax huwa huwa ñu naan huwe huwe huwa allaahu kon yàllaay malikin naasi bu ñu ko toppee du ñu fi jóg yàllaay buuru ndaw ñi malik buur day am doole fan la doomu aadama di toll di am doone doole mooy bu nekk jeune nekk adulte âge puberté mooy diggante Euh, euh, euh, dix-huit ans jëm quarante ans nga dëgër te pour pourtant li ngay am am doole bu la sunu borom bëggee wan ni amoo doole dalay yabalal sibbiru rek sa yaram bi di lox lootoo mën téye sa kaasu kafe ana ne ah man maay man maay delloo xelu ndaw ñi man maay buuru ndaw ñi ñi toll ci dëgg-dëgg ndaw maay seen buur parce que ndaw day defe ni bu asamaan di wàcc mu téeku waaye mu ne maay ilaahi naas maay yàllay mag ñi waaw noonu la a Cheikh Sidi Ahmed Tidiane firee radiallahu taala anhu wa amin yal nañu ko yàlla fayal imaam ah? ilaahi naas yi mag lenn dong lay lijjanti lenn dong lay xintee waaw weer wi feeñ na waaw fu waxtu wi toll waaw nañ jóg julli mag yéwénal rek lu koy jaamu lu rek moo mu ne ñetti étape yooyu di ko tàmbalee ci liir jaar ci ndaw ba jëm ci troisième âge mu ne maa ngi musuloo ci ci ci buur bi nga xam ne mooy topp ñett yooyu ci lan min charri loswaasal xannaas yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma maa ngi musuloo ci yow mii buur nga musal ma ci jax-jaxalu xannaas xannaas mooy seytaane inna cheytaana majri alal insaani majriya dam yonent bi nee na cheytaane day daw ci seen yaram comme ni seen deret di dawe ci yow ni sa deret di dawe ci yow ni la cheytaane di du mën a duggee ci yow di daw ci yow boo meree mu ñëw dugg la ëf sa dënn wax loola lu waxul yóbbu ci def loola lu deful yóbbu la ci def loolu loo xam ne da nga koy rëccu seytaane waaye nga am occasion moom weeru koor moom lu waay def na nga ci kaccet seytaane na nga ci génne seytaane ba mu set wicc seytaane nag moom foofu moom dama koy jëlal paar yeneen tibi nee na weeru koor tënkal nañ le seytaane kon mbokk yi loolu loo ciy jànge lu waay def kon moo ko tey loolu loolu laa ci dégg de lu waay def boppam lu waay def na ko na ko jiiñ boppam mbokk yi foofu nag ngay xamee ni wax dëgg yàlla opportunité nga am pour góor góor lu yar sa bakkan ba bu koor gi jeexee bu sey bu ñu tinkee seytaane bu mu ñëwaat ci yow sekk sa yaram fees dell ak leer fekk jaamu nga yàlla ba jël leer ju doy ba seytaane dootu la mën a fowe ah dootu la mën a fowe di la def loo ay bakkaar yu ñàkk fayda di def ci yow ay jikko yu kenn xamul ah bu ko defee kon mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax a baax ci weer wi góorgóorlu bu baax a baax tàggataat sunuy bakkan waaw tàggataat suñuy bakkan miinal suñuy ruu jaamu yàlla waaw nga góorgóorlu ba ci weer wi pour seytaane bañ la occupé ti nga yittewoo ci sa xol ak ci sa làmmiñ di sant sa borom fotol nga góorgóorlu di dem ci néegu yàlla yi fi nga xam ni seytaane du fa am accès di dem ci néegu yàlla yi di fa jooxe say waxtuy juróom hmm? ngay dem ca mbooloo ya ndax nga am tuyaabay mbooloo seytaane yomb na ko mu yàqal la yow kenn waaye yomb ko mu yàqal mbooloo mépp yomb ko mbooloo mu ànd di tudd yàlla mbooloo mu ànd di julli mbooloo mu ànd ci jëf ju baax kooku kooku day day day sonal seytaane ah, mu ne la góorgóorlul dàqal seytaane ci sa kër waaw dem jël ay neefere xaw ma lan di suuru naan anti seytaane déedéet <laughs> nan doon bàyyi caaxaan seytaane yooyu dàqu ko bal da koy xëcc sax nag dem fekk neefere euh, mbaam ndeysaan dem si yàlla si mbaam ah nga dem seeti neefere luñ naan xaw ma lan nga xaar ba mu wow nga jël ko ñu di ko di ko suuroo naan da ngay dàq seytaan yow ku la wax boobu foo ko jànge loolu yëfi ceddo la waaye yow mi bëgg dàq seytaane ak leer nee na leeralal sa kër nawwiru buyutakum bi tilaawatil quraan boo bëggee seytaane taqalikoog yow del jàng alquraan ju bari ci weeru koor sa biir kër seytaane daw la ak budul weeru koor waaw booy jàng alquraan sa kër seytaane day daw ayatul kursi yu alquran ayatu aayang ci boo xam ni boo boo ko doy jàng seytaane yi ñoo dajaloo ne fu koy jàng ku fa dem yaa lor sa bopp ñoom dañuy moy musulu ci kuy jàng alquran dañuy musulu ci kuy jàng ayatul ah boo bëggee seytaane may la jàmm fexeel sa xel bii ngay xalaat nooy jëfee ndigalu yàlla ak nooy xalaat nooy moytoo tere yàlla mbokk ñu teg foofu sunu baaraam fi ñuy daanalee mooy bokk na ci liy tax seytaane may nu jàmm ci suñuy diggante ñun wa zayyinu bawaatinakum bi xubbi baadikum li baad mooy kenn ku ci ne na nga bëgganteeg sa morom seytaane bëggul ñaari jullit yu déggoo bëggul ñaari jullit yu soppante kon mbokk yi bu ko defee fa inna allaha yaghfiru fi ramadan li ahli dunubi xayra zunubil adawati wal xiqd sunu borom dana nu jéggal suñuy bakkaar ñu ñëpp ba mu des nag ñi nga xam ni seytaane jàpp na leen seen bakkan jàpp na leen ba mënatuñu nuyonte jubawutuñu ah loolu seytaane koy def kon nag mbokk yi yal nañu yàlla musal seytaane ak bakkan in uridu illa lislah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim lu wóomle wóomle bàyyi ko gannaaw lu néewle néewle bàyyi ko gannaaw